waaw xam nga Wilane ku moom dafa yéeme parce que Tafsir Maba kooku dafa judd ak rawaxaanu Cheikh Omar Foutiou Tall mani Tafsir Maba dafa juddu gane àddina ak rawaxaanu Cheikh Omar Foutiou Tall Tafsir Maba dafa bokk ci koli tengeleng ba ñom duñu ñu waa Saalum de déedéet dafa bokk ci ñi ñuy tudde les Diniankoobe du Fouta waaw dafa bokk fofu. ñooñu diriger nañu Fouta pendant des siècles xam nga ñoom li leen tuxale Fouta ay mamam moy après révolution bi la révolution de 1776 bi Thierno souleyman Baal jógee ñëw. ñu daal di daaneel nguur ga fa nekkoon defar constitution bu bees ci la ay maamam bàyyee foofu nag xotti réew mi uti jolof est-ce que dégg nga wax bi léegi nag njóogu maa paate mi ko meññi moom moo déplacé wu ñëw saalum njóogu paate bi mu ñëwee saalum gurgi gi ko dalal góor gi ko dalal tabaarakallaahu nekkoon aussi sëriñ daara boo xamante ni dafa amee woon daara di jàngale waaye bi ñu dëkkee rek mu ne ko ah ñaari kuy nag du nu mën mbalka parce que sëriñ nga man sering daara laa kon il faut nga déplacé wu ba 3 kilomètres nga sanc fa sa daara bop. dégg nga wax bi looloo waral mu sempeeku dem trois kilomètres sanc dëkk bi mu sancee dëkk booba fekk na booba fekk na yàlla may na ko benn soxna boo xamante ni mi ngi tuddi wulimata xumma wulimata xumma mu jur ab abdulaay wulimata xumma borom ndee ndekki li ci jaxaw nga xam ni moom la ñu jox Linguère Selbe Diouf mu am ci mam maram ba mu jur Cheikh Tidiane si kon moom pël yee ndi jaayam mu jur astukan mu jur Cheikh Tidiane si mam maram ba moom meññ astukan mu jur Cheikh Tidiane si kon pël yee ndi jaayam bon tabaarakallaahu wuli mata xumma moomu moo jiitu ci kër njóogu paate mais yàlla def mu yéex a am njaboot yàlla def ki ko dalaloon góor googu mi ngi doon denc benn doom benn soxna bu ñuy wax jaxu jéey jaxu jéey moomu waa Jolof la mu am ci doom bu ñuy wax seet jaxu yàlla weddi góor gi nelaw bi góor gi nelawee comme Ndiogou Mapaté moo moo moo dalaloon baayam moo ko dalaloon te mu ngi à trois kilomètres dëkk boobu mu sanc sax baayam a ko sanc ak moom yàlla def xale bi ñëw seet si Ndiogou Mapaté ni ko sama yaay day liggéey ba mat na dama bëggoon rek jox la ko xam nga dégg nga ma mu accepté ko looloo waral jaxu jéey daldi dem ñu jox ko njuugu mu fekk si wulimata xumma doon rakkam moo tax jigéen ñi nañu bàyyi xel lii may bëgg a wax yenn saay di ngay bañ wujj fekk moo la war a tijji xam na dégg ma bi mu ñëwee ñu may ko ko entre 1908, 1808 et 1809. yalla def Jahujay Djey jéey dugg si ci dimu kër gi di ak dara bi mu dara tafsir mabala, mu gane en 1809 ci biir loolu naka la jàpp ànd ak dara rek moom moom moom njaxu jéy ci la ab ci la ci la wulumata xuma moom it quelques mois après yëg dara xuma nag dégg ma yàlla def nag ñoom ñaar mageelu doomu baay moo dox seen diggante parce que kii mu ngi judd 1809 kii judd 1810 tafsir maba moomu nag dafa juddu ak rawxaanu Cheikh Omar Fouti Tall moo tax bi mu demee ba am 12 ans fekk lii xew ci biir Saalum dafa amoon benn buur bu ñuy wax jile ba maroon ñu dëkkoon ak moom buur bi nag dafa ceddooy woon lool léegi sëriñ si nga xamante ni dañoo dëkkoon ak moom dafa leen hypnotisé woon ba dara doonul woon seen jitte lu dul di ko liggéeyal te ku ciy julli sax da ko koy nëbb tafsir maba bi muy am 12 ans mu daw songu bayam ni ko papa lii nu ngeen ko meuna nango dafa tambale wax rek bay bi taf gemmiñ gi ni ko yow wayal te wayegul gawal neub ko betu nit ñi parce que buñ ci dut baram wayal bi di yaq lolo waral bayam nak, da doon ragal ñu sakal ko pexé à l'âge de 12 ans mu faf ko genné Saalum ñëw indi ko entre kokki ak longor mbay ci digënté bobu la ci biir kadior tafsir Ababacar Mbay moo mottali aliwaam ba mu am xam-xam mu ne nag du ñibbi Saalum parce que lam fa gis neexu ko daf ko révolté ci tënk wilaan ci la dem Jolof tijji fa daara parce que fa la yaayam jóge ay ndajaayam foofu lañu 1827 baayam génn àdduna 1827 baayam génn àdduna bi baayam génnee àdduna ay rakkam nag dajaloo muy Abdoulaye Loumata Khouma moo leen dirigé tafsir Mamour Ndëri Ba Mamour Sëñ Cheikh Tidiane Tall Maki tafsir Mamour Ndëri Ba mooy maamam la moom tamit la parce que wuy juru Cerno Maki tafsir Mamour Ndëri Ba moo ko jur kon moom sët la foofu ah Abdoulaye Loumata ma borom dee ndekki li ci jaxaaw tafsir Mamour Ndëri Ba ak tafsir Ousmane Ba ñooñu ñoo dajaloo daa di jóge Saalum ñëw fekk ci tafsir Maba ci diggante Kajoor ak Jolof ni ko nun kat sunu baay génn na àddina booba tafsir Maba 18 ans la am waaye dañuy bañ nag daaraam fay loolu moo sabab ñu ñëw di la jëlsi moo tax mbokk lu doy waar la te tafsir Maba bi mu peegee xam-xam dafa dem Jolof tijji fa daara ni Saalum moom doot fa dem parce que la mu fa gis neexu mais bi ay rakkam ñëwee di ay nawleem di ay doomi baayam ni ko suñu baay génn na àdduna waaye yow yaa fii mag te bëgguñu suñu daaray baay fay dañoo bëggoon nga dellu si Saalum Tafsir Maba sans hésitation ni murmure mu ni leen nangul naa leen ko parce que kenn amul lu ëpp say bokk looloo waral mu sempeekoo diggante Jolof ak Kajoor dellu Saalum bi mu demee saalum yàlla def nag mu am bés ci nanji gi nanji gi mi ngi ci département mu amoon benn buur saalum bu fa dëkkoon bu ñuy wax Omar Ndaama Mbóoj moom tam danaan bañ ko julli waa nanji gi mu betelen leen jullik àjjuma fekk ñuy julli mu atelen leen rey leen rey fa cinquante yo xamanteni kenn ku ci ne bind nga waxuma tari nga alxuraan mais bind nga kamil tarikh la lay wax de lolou nak metti wa salum lol lolo waral bi nga xamanteni yalla dogal na serigne wonar genn adina bo ñewé ba wonar wonar sori wul fofu ci transgambien bi barki dem rek jaar fa serigne salum yeb daja fofu ci funérailles yi maanaam dëj bi biñ fa dajee ci dëj bi tafsir àndala buri daado Cissé boobu ci doyen yi la bokk daanaka moo ci mag mu ni leen ceddo yi àgg nañ ñu foo xamante ni il faut ñu def xalwa toog fii wonaar def xalwa pour xool kan lañu war a mën a jiital ci ñun ñépp jàppale ko pour mu def jihad fas def leen fas li may wax ci année 1830 yi la booba Tafsir ba Jaxu ay vingt ans lay tollu ndaw la bi ñu defee seen xalawaat yi ba génn kenn ku ne sëriñ wonaar dalaa laaj loo gis nga ni man de doomu njóogi maapaate ji laa gis booba Tafsir ba ndaw la mu topp ba sëriñ si daj ku génn ni joomu njóogu maa laa gis sëriñ wonaar tafsir àndala buri daado siise ni leen kon nañu ko samp almaami du rip loolu moo waral ñu def ko almaami du rip mag ñépp nag cautionné ko ak signature bu dëgër tafsir maba nag bi ñu ko defee almaami du rip toog na dix ans yëngatuwul toog na fukki at yëngatuwul li tax mani dafa juddu ak rawxaanu Cheikh Omar futi tal. parce que booba mi ngi amé wirdu khadir di ko doxal te yek na ni mission bi koy xaar il faut mu don tidiane te pour mu don tidiane il faut mu rencontrer Cheikh Omar te Cheikh Omar moko wara def khalifa responsabiliser ko jox ko ndigalu jihad mu soog motax mu tok fukki at te fukki at yoyu fekk na Cheikh Omar mi ngi ci tukki. mooy ca yoonam wa bi Cheikh Omar ñibbisee nag ci la yàlla dogal nu tase ak moom a Kabakato en 1846 bi nu dajee foofu Cheikh Omar def ko lim ko def ci jataay boobu la ko def tijaan ci la ko def euh, xaddamal ci la ko def xalifa jox ko ndigal nag ba pare 1846 googu fekk Cheikh Omar mi ngi wër réew mi. bi mu fi jógee moom tamit dellu Mali samp Maba ci trans ci ci Sénégal bi Tafsir Maba soog a mën a am ndigalu nag jóg moo tax booy seet entre 1846 ba 1860 Tafsir Maba mi ngi ci lutte contre le paganisme waaye bi mu eggee ba 1860 nag ci la ko yàlla may mu conquérir Nioro nangu ko ci loxo buur bi jële ba Maroon en 1860 la conquérir Nioro daa di dëkk bi daf ko tuddaat booba ñooro mi ngi tudd Poche Dima Poche benn garab la bu nekk ci Saalum Dima mooy ndaw lu ndaw ci soose mooy Poche gu ndaw gi bi Tafsir Mabane ñëwee conquérir Nioro daf ne dëkk bii de duma ko tuddee lu dul nuurullaahi moom moo tax boo demee ñooro di Sahel ba léegi am na fa quartier bu tudd Nuurullaahi noonu la dëkk ba tuddoon waaye Cheikh Umar ba mu conquérir ñooro ca Mali moom tam Nuurullaahi la ko tudde woon moo tax Cheikh Umar ma euh, euh, Maba bi mu conquérir euh, poche dima googu mu mu mu mu jël tur bi tabarrukan ngir symboliser ah ak rendre ci hommage sëriñam mu Cheikh El Hadj Omarul Fouti nga xam ne am na Nioro ca ca Mali. léegi baatu nuurullaahi googu bambara yi ak xaaso yi booba ñoo ko dëkkee mënuñu tudd bu baatu nuuru ñuy wax nooro <laughs> ba mujj gi ñu yàq ko naan ñooro loolu moo indi déformé bi mais moom tur bi nuurullaahi la maba tafsir maba tudde nag dëkk ba nuurullaahi mooy ñooro ñooro gii ñuy tudde ñooro di rip waaye pour wax la ni dafa juddu ak rawxaanu Cheikh Omar sëriñ si nag nangul ko yàlla def nag yàlla dimbali woon ko nag parce que ay rakkam dañ ko bëggoon xam nga jafe na ci jamono nga nekk ak sa baay ba xëy mu faatu ñu ni nañ dem wëri ab taawam xoola Saalum ak Kajoor ni mu soree xam na dégg nga ma ñu mobiliser wu à dox ba fekk ko diggante. kajoor ak euh, jolof ni ko bëgguñu suñu daaree baay feeñ fay loolu loolu loolu tuutiwul te Cheikh Omar boo gisee mu responsabiliser Maba ni ko na def jihaat waaye jihaatam na ko tàmbalee fii ci RIP mu lutter vers le nord waaye ngalla waaye tafsir Maba mu ni ko ha mu ni ko bafi siin ah, waaw dem naa fa teral nanu ma am na ñu ni la mu ko dénk sax mi ngi ko tënk ci baasin mimara waaw boo gisee maa ngi koy wax bërki démb benn kilifa ndeysaan ma ni ko boo gisee maam Abdoulaye Niass bi muy dem Makka dafa suivre trace su Cheikh yi fi Cheikh Omar jaar ba yegg Makka trace bobu la jaar xamana na mu tankam ak tankam fi mu fi Cheikh Omar beut dex yi mu traverser non la ko topé ba ni mu eggee makkatul mukarram mama la jabdoulay motax bi Baye Niass duggu mm, Mali Baye bim bi mu egsee kaay bi mu egsee kaay ci la ko wan ñoro du parce que kaay googu Cheikh Omar jaar na fa xam naa loolu dañ koy beral waxtaan bi mu fa jógee dëkk bi mu njëkk a tata bi mu njëkk a taxawal mooy Kuñankaare ma ciy profité du nuyu njabootu Cerno Yaxya Taal génn na àddina léegi yaa trois ans yàlla na ko yàlla yërëm moom tabaarakallaahu sët la ci Cheikh Omar ay sëtam ñoo ngi fi am na ci benn xale bu mu sopp lool sax muy shérif Euh, maa ngi koy nuyu moom tam di ko siyaara di jaale njabootam gépp nag mais Baye Niass bi mu egsee kaay mooy Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla wan ko leeru ñooro ñu ni ko am na benn shérif bu fa nekk muy shérif Hamahullah Baye Niass am yéene pour saafonte ak moom looloo waral mu jóge kaay dem utali ñooro mais malheureusement bi muy egg si ñooro booba fekk na jant baa ngi lang ci ngoon fekk shérif xamaawula ca bi jant biy jóg ci la génn ñooro moo tax gisewuñu def dafa séjour bu gàtt ci la ko yàlla indil sirru basin mi mara boobu mu defee Mali manam bimu mu ñoro dafa def ba comme Bamako après mu def miim comme Mopti ah dafa def siin comme Ségou def miim comme Mopti tel Cheikh Omar Fouti l'a fait motax bimu bi fofu rek ci la yalla muri ko carrément te boy seet le Mopti da ngay am Niger am nigeria am le Mali Tchad. moo tax il est mieux connu là-bas tabaarakallaahu mais gis nga ñu loolu broche kii la woon rek nu mu tëdd ci parenthèse la woon pour li ma wax ni li mu dénkante ak tafsir ma ba moom Cheikh Umar mi ngi ko tënk ci baasin mi mara waaw dégg bi baa bi comme bafi siin gi comme siin dégg nga wax bi tabaarakallaahu ndax dem naa fa kat teral nañu ma miim gi nag nañ ma may ma daal di koy añee <laughs> maanaam du ma ci yegg tabaarakallaahu dégg nga Seydou Wilane moo tax euh, tafsir Maba bu Cheikh Omar pale woon Mali daf doon ñëw prêter ko mais forte pour ñu pour ñu pour ñu euh, raatale Sénégal bi parce que yéene boobu la amee woon lool la la Cheikh amee woon. ndax jotoon na am jox joxlante tuuti ak anglais yi te waxoon na leen bu paree day ñëw far yàlla def nag en 1864 yàlla weddi mu disparaître ci jihad bi mais daal lii moo ko boolee ak Tafsir Maba mission la sur mission